mbokki internet Pikini production ñi ngi ñëw seen émission njariñ ngir li leen di jariñ tey ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Serigne Daouda Seck borom soble bi fii ci Yoff Serigne Daouda ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu téléspectateur yi lay seetaan bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi ddin ila yawmi alqiyama ila yawmi libason waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo Cheikh Moustapha di leen ziar bu baax yéen waa Pikine yëpp. ñii di seetaan ñu xam euh, yan façon seet ngay def. Mhm. mbir seet diñ ci yëngatu dañuy def seet ci ndox dañuy def seet ci suuf dañuy def tamit istixaar waaye alhamdulilah yàlla dimbali ñu mbiri seet moom am nañ ci tawféex ba nga xamante ni melal nu la neex lu la neex na la dal na nga ànd ak rab bu nekk wala loo mun di ne mais ñun bu ñu la seetee dañ la gis. te it buñ seetee duñ gis rek la ñuy wax luñ gisut moom duñ ko wax ndax yàlla moo ñuy wax si alquran wa ma sayidna illa bi ma alim na mhm. kenn ku ne li nga xam ngay seede ñun tamit luñ xam rek la ñuy wax luñ xamul duñ ko wax mukk lu si suñ ko duñ la wax nag su mhm. laajee sarax dañ la wax sarax ji la mhm. su laajee sarax dañ la wax lii la ak lii nga gis ko waaye ñun daal danañ seet si suuf danañ seet ci ndox tamit danañ def istixaara wala istixaara lañu ëpp suuf ak ndox ak yooyu lan mooy xam-xam yi ñoo bëri te wuutee nag looloo tax am na ñoo xam ne tey seet yi bëri na am na ñoo xam ne loxo sa loxo rek boo leen ko tàllalee ñu wax la ñun loolu duñ koy def waaye luñ koy def bëriwul mm-hmm. am na ñoo xamante ni dangay oote téléphone rek wax leen sa tur mm-hmm. waaye ñun nag bu ñu lay seetal moom dañ ñu jox sa tur ak sa tur yaay boo ñu ko joxee ak at yi nga am mm-hmm. ñu xool ko bu baax gëstu ko parce que kenn ku ne dafa am biddiw yow danga am biddiw man dama am biddiw kenn ku ne pour ñu gis la nag danañ jaar sa biddiw pour man laa xool waaye am na ñoo xam ne seet yi façon yi bëree bëri bëri bëri la waaye suuf moom dafa wér parce que yàlla moo ñu ko wax ci alquran isa sulsilatil ardu sin saala mm-hmm. moo tax ñun moom la ñuy liggéeyee suñ mbir yëpp dafa làqu ci alquran moo tax mm-hmm. est-ce pour loolu moo yàq àdduna bi loolu moo yàq Sénégal parce que dama koy wax mm-hmm. nit ñi bu seen mbir yi di baax rek duñ lijjanti dara duñ toppatoo seen yaram duñ toppatoo seen jëmm duñ toppatoo dara léegi bu demee ba naqadi nga bëgg a jug léegi boo jugee te tasee waaja rek du baax ci yow boo jugee tal foo xamante ni baaxul mm-hmm. da ngay jàpp ne ñëpp ñoo yem sëriñ yëpp xamuñ dara wala ñëpp yem ay nangam fekk demeewul noonu mm-hmm. ba nga waree jug jugoo te ba nga jugee fa nga jaar baaxut ku jaarut ci yoon bu baax nag doo mos a yegg da ngay dem rek waaye doo mos a yegg waaye boo jaaree ci yoonu baax bi yàgg-yàgg di nga yegg mm-hmm. parce que olof moo koy wax xëcc bu daggul dikk waaw ah, loolu rek mais nit moom danga nga war chaque jour da nga war a waggar sa bopp parce que yàlla moo la bindee yow Moustapha bind ma man ëppale wu ma la dara si yàlla yow ëppale wu ma dara si yàlla nga gis ma man maa ngi jóg di def ay yitte pour sama bopp nga toog naan yàlla baax na ah yàlla du ko faye feebar yi nag gis nañ ni bari na mhm. ñu bëggoon xam yow yan feebar ngay ñun feebar yi ñuy fet mhm. xaw naa bëri tuuti mhm. lu ko lu mel nii koo xamante ni góor goo xam ne dafa tële wala koo xamante ni def nañ ko lu bon ba mu tàkkali ko sogom walla koo xamante ni dafa yor émérite wala ndoxu si teeg yooyu noonu ñun duñ koy faj waaye koo xam ne dafa tële moom bu ko judduwaalee ñun mënuñ kaa faj waaye fekkee dakaa dab moom bu ñuy am nañ traitement bu ñuy def ak moom mooy socc bi tamit ci la bokk wàllu ngóora ci dox bu baax a baax waaw da koy soccoo bu fekkee war ngaa jëflanteeg soxna si rek hmm. laata loolu da koy so da koy soccoo hmm. boo ko soccoo incha allah boo jëflanteeg soxna da nga gis ay changement ci sa bi socc bi ndax socc mook socc yëpp yem non non yemut ak socc yëpp de gisee différence bi mooy socc bi fu mu jugee dafa sori mu ngi jugee fi ba Nigéria lañ ko jëlee Nigéria waaw man bu ñëwee lu ma ciy amee sax du bëri daanaka bi ñëw daanaka day jeex parce que am naa ay xarit yoo xam ne ak samay nit ñu yàgg ak man dañ ma koy commandé mm-hmm. waaw bu ñëwee rek daanaka dafay jeex mais boo ko mosee danga nga xam ne lii bokkut ak yeneen socc mm-hmm. socc bu baax ci ngóoraal bu fekkee da ngay feebul nii mm-hmm. wala nangam say kii gaawul yooyu noonu sa ndox dëgërut wala dara yooyu yëpp da koy da koy da koy da koy faj waaw macha allah. lan moo waral ah, Serigne Daouda Seck borom soble bi. <laughs> alhamdulilah Moustapha yaa ngi koy laaj laaj bu ma xamante ni ñëpp ñi ma koy laaj. yaakaar naa sëriñ yi bari nañ Sénégal waaye soble bi moom man kese la man rek lañ gis maa koy yore te alhamdulilah bañ bañ ko yoree ba léegi yàlla mu ngi siy dimbale bu baax ñu si defal taw feex soble bi nag su yu muy yëngatu dafa bëri xam-xam yi moo bëri ba léegi ñun ñu ngi jàng ci soble bi am na yenn xam-xam yoo xam ne ni ba léegi amaguñ si ndigal ñu ngi siy sàkku ndigal waaye bi nga xamante ni moo gën a gaaw gën a efficace mooy mbiru këyit waaw bu fekkee ne da ngay déposer ay këyit mu yàgg ay këyit jafe wala dara soobe yàlla yonent boo jëfla boo jëflantee si ñun ñun danañ jaar si soble bii nii fajal la sa aajo te luñ si faj ci ay aajo kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. yàlla mu ñu tiim mooy moo moo tax ñuy wax. day dox tamit si diggante jëkkër ak jabar nga am sa soxna nii nga gis ne kii yemul benn place. bu mm-hmm. yàlla soble bi da koy da ciy dox bu baax a baax a baax suñ defee lu ñuy def ba pare. Mm-hmm. da nga gis soxna si dalay déggal comme ni. xaj muus ak borom wala xaj ak borom. noonu tamit la mel contraire si wàll góor bi góor tamit noonu la mel. waaw. te it wàllu jigéen ñi tamit am nañ fi boo xamante ni saafara boo xamante ni boo saafara liggéey bu ñuul la mën nañoo wax mm-hmm. yow soxna si yow yaa koy jël da nga koy raxasee sa kanam rek boo séeg sa jëkkër wala sa jëkkër bu séeg yow day yaakaar ne yow kese yaay jigéen ci kaw àdduna yow kese yaay jigéen ci kaw suuf même chose boobu tamit day dox ci wàllu góor gi waaw jëkkër nen mën naa dem nag doxaani mais moom jigéen bu mu munti takk indi mm-hmm. du la yemale ak moom ci kër àdduna loolu mënul nekk mm-hmm. boo ko xasee ba def jeex na soble tamit fekkee da nga nekk fenn ñu sonal la comme daan naa ko wax fii ma ne kër yi nañ xool ci frigo yi ak ci taatu ndaal yi soble bi mu ngi fa nekkul soble bu tege noonu rek bëri na yoo xamante sa soble li ñu si joxe bëri na trop macha allah yàlla mu ñu si defal tawfeex nga nekk si kër di sëy am ku la fa sonal wala dara affaire yooyu noonu mayu la jàmm yooyu yëpp sol soble bi da ciy da ciy dox ñu ngi si jamee pousse yii lañ si jamee tamit dëj yi dañ ko si jam waaw dëj yi nag bu fekkee ne liggéey la liggéey boo xamante nii la pour li liggéey bu xaw a ñuul la wala liggéey am koo xamante ni daal def na lu la métti mm-hmm. nga bëgg fay wante ak moom mm-hmm. su boobaa la ñuy jël pour si euh, dég yi nii am lu ñu utiliser di ko si jam buñ paree am fu ñu koy def kaaraange moom duñ si yëngu bu baax a baax mm-hmm. am na ñaari cangar yoo xamante ni bii boo ko sangoo ci anam bi mën ngaa mucc ku la fexal booku nag nag dogalu yàlla yàlla moom lu mu dogal si jàmm moom nit mënu ci dara waaye bu fekkee mbiri nit la rek mbiri doomu aadama rek nit kuy dox si kaw suuf mënalu la dara kuy dox ci kaw suuf mënul dara am na tamit jaaru boo xamante ni dañuy jël sa tur ñu def ko ñu ñu ñu ñu instab ko xool sa tur xool chiffre yi mu tolloot ñu bindal la ko dañ la koy bindal xaatim bi nga def defar ko comme jaaru nga takk ko mm-hmm. képp ku wax ci yow fu mu taxaw di wax ci yow wax ji du yegg ci day delluwaat saa yu waxee wax ji day dëppaat saa yu waxee day dëppaat contraire tamit am na jaaru yoo xam ne pour wërsëg la mm-hmm. mais jaaru boobu kaaraange la mbiru kaaraange boo xamante ni la bu wér a wér la mm-hmm. mu ngi mel ni tamit fas bii ma téye noonu la ci wàllu kaaraange la fekk yaa ngi ko takk soo defee soog lu mu metti métti da nga jug doxal si soxla yi doo ci des waaw accident doo ci des mm-hmm. waaw fas bii la fas fas bii nii ma téye nii la kaaraange la wala yooyu noonu yooyu moom doo ko nu mu tuddati waaw da nga ciy mucc mm-hmm. boo ko takkee tey boo naroon jaar fii mu leer la fii moom yow óoloo ko sa xel dalu si mm-hmm. doo jaar doo jàll soo buggee dem sax doo dem da lay dëppaloo maanaam du la jël di la di la la dugal si loo xamante ni dalay dalay lor da nga ciy am gàllankoor ba léegi ñu ngi wax ci njariñ ñi nga xamante ni soble gi mu ngi def mhm. waaw dañoo gis ndomb fii tamit ndomb gi moom ndomb lan la mhm. waaw alhamdulilah ndomb gi gars yi ñoo ko laajtewaat moo tax ñu génneewaat ko foqat la tudd bokk te bu génnee woon am na bu ñu mos a wane woon ne boobu lamp taakile mais bii foqat la maanaam mooy lan bii tey jii nii yow mhm. nga nga may laaj dara man ma bañ boo ko takkee di ma nuyu trois jours kenn mënul wax ba li may laaj du la ko jox nga nekk nit ku ko neex mhm. noonu la mel nga nekk ci entreprise am ñu la fa bañ gis na ñii say noonu leen takkal rek yow mhm. fii lañ koy takk kenn du ko gis mhm. mais boo koy nuyu di nuyu sa noon boobu noonu dana dem ba dootul wax ci yow su fekkee nit ñi di wax ci yow sax dana noppi leen kooku amul problème même patron bi boo koy nuyu tamit da lay bëgg nit ku lay xeex daal ci bërëb boo nekk bëgg la faa jëlee ndomb gi boo ko takkee feeg mu fa nit mënu la faa jëlee ci kaw suuf kanaa yàlla dogal ay dogalam comme waxee yàlla moom bu dogalee keneen mënu ci waaye bu fekkee ne mbiri doomu aadama la nii rek mag hmm. yi am na kaaraange am na lépp mu ngi ci biir wërsëg a ngi ci lépp lañ lañ koy defal luñ koy defaree moo bëri bu ëpp waaw wax nga sànq ci mbiru këyit hmm. ndax kuy ut visa hmm. ñu di ko toppatoo mu dëgër ah, ay këyit ndax yow ci dimbali waaw fii de am na ñoo xamante nii suñ déggee suñ déggee interview bi ñoom danañ xam ñoo leen dimbalee suñu jëmm ji xeebu ji ñoo leen dimbalee bañ tukki ñoom tamit macha allah fàttewuñ luñ leen luñ leen defal. fàtt nañ leen nuyu sax ñu ngi leen nuyu ñoon ñëpp. ñu nekk bitim réew ñëpp xam nañ ñu ci mbir këyit. Mm-hmm. waaw ñu ngi ciy jëflante ñëpp yàlla def na tawféex alhamdulilah. day sotti ñun suñu liggéey lu ëpp sax daanaka foofu la. léegi ku sori comme koo xam dafa nekk a koy dimbali ndax. Hmm. du yónnee kayit yi bu ko déposé bu fekkee xam na fu mu ko déposé dañuy jox turu fu mu ko déposé. Hmm. bu xamee ku yor wàllu kayit yi mu jox ñu ko su ko xamul na fexe am suufu suufu dëkk bi rek. suufu waaw. suufu dëkk bi bu ko amee. ñun dana am yoo xamante ni dañ ko koy yónnee su demee dakay koy suufu dëkk bi ak xaalis bi. Hmm. su ko jëfandikoo buñ ko joxee rendez-vous bu demee suy génn dana ànd ak kayit yi ñi di jàng ba tey yooyu tamit da ciy def da ciy def ñun suñ mbokk yi nekk Maroc wala mm. Canada ñu ciy jëflante ak ñoom bu baax macha allah. Mm. waaw yàlla mu ngi leen dimbale am na sax ñu nekk fii ñoo xamante ni ay étudiants leen fii ñu dimbale leen bañ dem jàngi. Mm. waaw xam nga étudiant moom. soo jëflante moom da ngay jëflante te te yàlla tax waaye maa leen wax gëj naa leen a dégg nag ñoom bu ko déggee danañ danañ xam. macha allah. Mm-hmm. mosoo liggéey ci wàllu politique wala ci wàllu làmb wala yu demee noonu. kay ciy liggéey bu baax ndax mu hmm. koy di nga ciy liggéey am na ñoo xamante ni suñu waay lañ Modou Lo mu ngi dëkk fii rek bët bu seen ñu wax ko suñu waay la waaw suñu xarit la hmm. macha allah làmb diñ ciy liggéey am na ay mbër yoo xam ne diñ fi ñëw ñuy hmm. jëflanteeg ñun politique tamit léeg-léeg ñu xamanteeg ay kilifa fii ñuy ñuy jëflanteeg ñoom mais làmb moom duñ ciy liggéey bu baax daaw fii waxoon nañ fi fii komba Modou Lo Ama Sène bi waaw ñëpp seetaan nañ ko yàlla defal ñu ci tawfeex waaw làmb ñu ciy kii bu baax parce que yàlla baax jërëjëf sa mhm. sëriñ bi ah, mhm. dañuy mhm. waaw foofu la ñuy tëjee rek ah, gi jërëjëf Cheikh Moustapha gàmm gi moom yaakaar naa nit warta am benn soxla lu dul gàmm fi ne nii nit moom fi ne nii soxla boo mënoon am da nga kaa war a da nga koy bàyyi gannaaw di ñaan yàlla rek ci barke weer bi ak ci barke borom weer bi yàlla yëkkati suñu mbir ba déwén ci heure bi kenn ku ne ci loo nekkoon nga yëg sa bopp ne am na avancement ci kanam di wax ne tamit nit ñi nañ def nànk chauffeur yi def nànk dal nànk ñu daw nànk dal nànk nit ñi tamit ànd ak seen xel tamit dinaa laalaale ci wàllu suñu bokk sëriñ parce que temps yi wax ji bëri na trop trop waaye comme li ma daan wax rek laay wax yàlla bu ñun bu ñu sañoon duñ def lii dañuy dem defi leneen waaye yàlla moo ñu nattoo lii léegi nit nag bu yàlla ñëwee bu amee problème ñoo wax la ko bala nga kaa wax dara wala dara yow nit nga na nga ko dalal ba te it lépp loo xamante ni wax na ko ak yow moom lu mu la wax mu def ko yow tamit fexeel li nga ko wax nga def ko. li nga ko wax nga def ko parce que ñun ñi kenn ku ne dafay dee fii ñëpp xam nañ loolu mënuñoo génne léegi kenn xamul na da nga fekkee ngoon. nit nag lépp looy def da nga see war a bàyyi xel bés dina ñëw doo mënal dara sa bopp te di nga jàkkaarloo ak yàlla di lekk xaalis jàmbur di jël alalu jàmbur. te te doo ko defal dara di bon loo xolal di tàngal xolam parce que dama lu tax ma koy wax dama ci am cas yu bëri da ngay jokkoog ñu wax loolu. waaw mbir yi nag ñun métti nañu mënuñ ci dara waaye tamit ñuy ñaalu nañ xool ñi ñi ñi jëflanteet nekkul n'importe kii moo mën a ñaan nga xool ñu ngay jëflanteet waaye soo mooy li may wax sànq si commencement boo dalee foo wërta dara rek da ngay sonn di nga wër ba sonn doo gis dara moo tax nañ gën a rafetaal rafetalaat toogaay yi gën a rafetalaat diggante yi yàlla dolli xéwal yi comme ni mu ko waxee ci alquran la in sakartum la azidannakum ñu sant mu dolli yàlla yóbbu ñu ñëpp ñu dem gàmmu ji ci jàmm ak salaam ñëw ñaanal yàlla kilifa yi fi nekk yëpp yàlla def ci jàmm sëñ taxa sëñ May si Mansour ñun ñëpp ñu ngi nuyu tamit porte-parole Laayeen mu ngi fii suñ sëriñ Cheikh Mahamadul Amin ak kalifa bi sëñ Abdoulaye ñu ngi nii suñ ginnaaw sorewul ay nit ñu baax lañ macha allah di ñaan daal si réew mi jàmm yàlla def fi jàmm salaam ñu daw jàmm ñëw jàmm kuy dem nag soo mënee saraxa suukar booy génn sa kër paquet suukar nga saraxa ko di nga dem si jàmm ñëw si jàmm salaamaaleykum wa